asalaamaaleykum suñ mbokk internet yi ñuy topp ci biir Equivox TV tey ñoo ngi am mbégte ak contentement dal ki nga xamante ni moom mooy Seydina Ababacar bi tey nekkoon ki nga xamante ni moom mooy directeur cabinet du ministre Mansour Faye tey ñu dénk ko li nga xamante ni moom mooy contrôleur de gestion et fonds développement bi nga xamante ni moom mooy transport terrestre nekk ki nga xamante ni moom mooy coordonnateur de la cellule de communication bu majorité présidentielle fi nga xamante ni mooy département Saint-Louis tey nag suñ plateau ci biir Equivox TV dafay doon li nga xamante ni moom mooy rendre un hommage mérité ki nga xamante ni moom mooy Aline Badara Cissé mu jugee fi barki démb Sénégal yëpp di ko jooy fépp fu ñu mën a nekk ci biir réew ak bitim réew di ko jooy ñoo ngi koy rendre hommage ci biir Equivox TV yéen ñaar ngeen amoon ay relation personnelle yoo xamante ni ay valeur moo ko fondé dañ lay bàyyi nga nuyoo suñu mbokku internet yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre jërëjëf jërëjëf euh, maa ngi lay ziar di di ziar sa ñi ngay liggéeyal mm-hmm. di rafetlu li ngeen taxawal mm-hmm. effectivement nuyu Euh, ni nga ko waxee noonu la je pense Seydina Babacar bi tey doon directeur cabinet bu maire de Saint-Louis. Mhm. effectivement il est le ministre. laa nekkoon directeur cabinet mhm. euh, depuis quelque temps nag wax nga dëkk maa ngi nekk contrôleur de gestion au niveau du fonds de développement des transports terrestres. Mhm. yàlla def aussi may coordonnateur euh, cellule de communi de communication de réflexion bu ñu tuddee CREM. bu département de Saint-Louis. effectivement di am di am honneur quand ñëw fii toog pour rendre un hommage à à maître euh, Alioune Badara Cissé. Mm-hmm. mi nga xam ne ñun ñu koy woowee ABC parce que quand i mérite na loolu. Mm-hmm. Euh, vu jaar jaaram. Euh, fu muy fu mu andi APR fu mu andi médiateur de la République ak yëpp mm-hmm. vraiment il le mérite. kenn mënta wax ABC te tuddoo APR yaakaar yan valeur moo fonde APR yaakaar. nga xamante ni moom kenn fa fekk yéen ñi nga xamante ni yéen a ñëw après la génération de ABC. Euh, jërëjëf xam nga euh, jàpp naa ni askan wi. Sénégal yàgg nañ dégg euh, muy wax mu ne il est le géniteur de l'APR parce que effectivement mook président de ak ay seen ay ñooñ ñu si bëri ay Mansour Faye ak ñeneen ñoom ñoo créé euh, l'APR euh, si conditions yi ñu ko créé nag ñëpp xam nañ ko par rapport ak problème yi ñu amoon ak ak PDS ak le président Wade ñu bugg a bundu xatal le président Macky Sall ñoom ñu ànd ak moom je pense que ànd ak moom si ngor si fit Euh, valeurs yi fonde APR nag bu ñu ko waxee le travail xam nga liggéey moom sëñ Touba da ko wax sax. Mhm. liggéey dafa am solo euh, mais bu jugee si loolu muy la solidarité. Mhm. Euh, nan la ñu mën a dimbalante mais dignité nga xam ne loolu mooy nit. et je pense que ce sont des dafa des valeurs yi nga xam ne moo fonde woon principalement Alioune Badara Cissé. parce que moom moo ko woon durant tout son cursus. Mhm. d' ailleurs am nañ ñu ko doon tuddee sax le rebelle de l'APR parce que effectivement dafa jàppoon ni. xëy na am na dignité boo xam ne dara du ko tax du ko dindi si moom moo taxoon aussi mu amoon le sens de la vérité di wax euh, dëgg ji euh, lu ko si man di fekk aussi mu mu mu nangu ko je pense que loolu noonu euh, moom mooy fondé APR xëy na mu war a nekk loo xam ne xëy na ñun jeune comme ni nga ko waxee ñëw après ñoom mu war a nekk ay valeurs yu ñu war a demaat xoolaat ko puiser waat sa pour mën a defaru taxaw pour que ëllëg si biir suñu suñu guddee àll te day ñëw incha allah rabbi li ko dal moom ba ñëpp Euh, wóyal ko wóy wu rafet. Mhm. ñun mu dal ñu parce que mhm. effectivement je pense que loolu am na solo. Mhm. et je suis de ceux qui pensent que loolu mooy lekk bu mu ñu bu mu ñu bu ñu bàyyee. war nañ si mën a jóg euh, war nañ si mën a taxaw pour que au moins euh, nekk ay nit yi nga xam ne moom nit boobu la nekkoon. liggéey solidarité dignité mooy valeur yu fonde APR. Hmm. Aline ba Badara Cissé ban taxawaay la si am. waaw taxaw xam nga taxawaay bu gën a am solo mooy mbir bi boo ko boo bokkee su ñu ko defar. Hmm. boo bokkee su ñu ko tëgg. taxawal ko loolu noonu dafa foor nga bokk si ñu ko animé euh, man yàlla def na ni xëy na euh, maa ngi dugg APR par l'entremise de Mansour Faye mooy sama mentor moo ma dugal moom laa xamoon euh, jamono jooju noonu xëy na xamuñu woon bu baax Alioune Badara xaw ma woon bu baax Alioune Badara Cissé mais ça n'empêche pas que bañ ko créer ba di ko doxal dafa am lu bëri loo xam suñu waxee suñu axalaay te Alioune Badara am na si wàll am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na tax na ñoom ñu ñëw dugg si APR par par son verbe par son éloquence par par sa prestance par son élégance je pense que amoon na yàlla mayoon na ko euh, loo xam ne su su waxee di nga xam ne fii nii idée yi am na benn fil conducteur bu cohérent bu si nekk et au fil conducteur bi na mu koy waxee na mu koy jëfee yow sa ça forcé le respect parce que da ngay gis ne euh, lu muy wax gëm na ko te te au delà de gëm bi da di nekk loo xam ne ni mu koy waxee mu rafet mu taaru euh, parce que si biir da ngay gis da ngay gis nit ki di jaillir nit ki di jaayir mooy lan mooy que valeur yi ñu doon wax mhm. mooy alxuraan bi mooy jaar-jaar bi mooy jàng bi mooy xam adduna mooy yërëm nit mooy générosité bi je pense que à travers ça nekkoon na benn porte-étendard bu bu APR dans ses début ses débuts euh, très difficiles euh, pourtant boo gisee euh, nga juddu 2008 mhm. ñëw élection 2012 nga jël deuxième bu président euh, Wade deuxième tour et je pense que loolu noonu am na travail bu am solo boo xam ne en amont moom la ñu def et je pense que travail boobu noonu kenn du si génnee ABC moo tax ma ne la euh, am na solo am solo boo xam ne euh, da ngay da ngay da ngay gis à chaque fois que ne valeurs yooyu noonu ba mu jógee si juddu bi doxalee na ko tëraleen na ko ba nga xam ne jël nañ réew mi et je pense que c'est très important aujourd'hui ñu rappeler ko ban lecture ngay am si ay mu ci biir APR yaakaar ak nu doon doxee digganteem ak parti bi hmm. est-ce que l'homme méritait ça Euh, euh, non xam nga ABC doo wax ndax mérité. Mm. Euh, parce que de toute façon mérite ou pas. Mm-hmm. moom gëm-gëmam da koy def. Mm-hmm. gëm-gëmam da koy wax je pense que loolu noonu il a il a éboué tout xam nga Alioune Badara Cissé mm-hmm. dafa am luy nit ñi di eh, di di réeree mbir toujours l'homme boo ko jegee. nga xam ne moom il est médian. et multidimensionnel. multidimensionnel Alioune Badara Cissé man dama jàpp ne. tuuti naa lool si wax jaar-jaaram wala si wax ay poste yu mu yu yu yu mu yu mu occupé mais post bu gën a méngoo ak nit ku mu doon. mooy médiate de la République. parce que Alioune Badji Cissé c'était quelqu'un qui était euh, très très très euh, dafa dafa bëgg dëgg euh, bëgg équilibré maanaam bëggul kuy tooñ. loolu am na. pas pour rien aussi que le président Macky Sall defoon ministre des affaires étrangères. parce que am na benn diplomatie te diplomatie boobu noonu nekkul rek entre entre état entre nation mais diplomatie boobu noonu da koy def entre ñun ñii moo ñu mag. moo ñu magoon fuuf euh, mën a nekk suñu ay suñu ay baay ça n'empêchait pas que à chaque fois boo jàkkaarloo moom mu jox la gëdd bu mu la war a jox quelle que soit sa position si moom quel que soit ñi ngay jàmmarloo ak moom am na loo xam dina la mën a jàng parce que da jox cër et je pense que loolu noonu mooy mooy méngoo ABC euh, xam nga euh, nee naa la am na jamono joo xam ne sax ñu ko doon woowee le rebelle de l'APR parce que jàppoon nañ ne xëy na moom boole ko woon ci dara ci biir APR du sax boole ko waaye dafa jàppoon ne xëy na am na dëgg joo xam ne waroon na ko wax mm-hmm. te da wax mu neex ñu ànd ak moom mu bañ leen a neex da koy wax et je pense que loolu noonu ça a la marque de fabrique de de de ABC parce qu'il se disait souvent que xëy na euh, waruñu woon waru waruñu woon nekk si logique gu neex na baax na nooy na di dem il fale à chaque fois rappeler que ni nañ xool li nañ bàyyi xel li nañu seetaan li pour que au moins euh, mën a defaraat taxawaay et loolu noonu nit ku koy def en général dafay bëgg au moins mujj ba rafet. dafay bëgg mujj bu affaire mu affaire rafet moo tax il était mal compris mais quand même on on voit aujourd'hui que au moins euh, bu ko nit ñi nawee muy opposition muy parti au pouvoir muy société civile sëriñ si sëriñ si yëpp c'est parce que effectivement il a su garder cette droiture là et je pense que leçon la aujourd'hui euh, li ñuy wax nañ naan Afrique ndeysaan boo quand euh, un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle mais ABC au lieu de brûler bibliothèque boobu noonu dafa mel ni dëkk raviver maanaam dëkk gën a suqaliku génn ne xool leen man na ma laan defee ngeen defee ko ça ne veut pas dire nag nga ñàgg te kenn kii que ce soit ça pas dire nga taxaw parce que position du yomb on prend mon exemple je suis désolé de le dire am na ay position yu ABC doon véhiculer man mënu ma ko def parce que je que damaa tuuti loolu si jur gi waaye dina la wan ne yow am nga benn dignité boo war a am am na benn droit boo war a am te looy def naka naka naka na na dëgg naka dëgg lal su ko dëgg yow dina tax au moins nga jubboog sa borom et sa morom luñ la xarab xarab xarab ëllëg si biir dinañ la naw parce que dañu xam ne foofu la. et je pense que parti bi nga xamante ni moom mooy alliance pour la mm. yaakaar. tey pour tey nga xamante ni moom mooy mémoire ki nga xamante ni mooy Alioune Badara Cissé. Mm. yan taxawaay ngeen war a amaat en commençant même par le président de la république. non au sein de votre coalition de votre parti. ñu je fais pas chercher loin. Mm-hmm. dama la wax sànq ay valeurs. Mm-hmm. première valeur bi nga xam ne war na mën a ñëwaat si biir. coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekk aujourd'hui la grande majorité présidentielle bi nga xam ne affaire da si am wàll bu bare mooy la solidarité la solidarité boobu noonu dafa nekkoon si marque de fabrique bu ABC xam nga ABC euh, autonome politique émérite euh, mais ABC c'était un avocat les personnes démunies euh, sans sans ñu fay leen xam nga sa cest mu ngi lay wan ne solidarité dafa am solo solidarité boobu lu tax ma xëcc ko foofu noonu mooy que jamono jii muy coalition benn Bokk Yaakaar dañu dafa bëri ay euh, euh, pas ay xiiroo sax ngaayoo mais euh, maanaam dafa am ay choc des ambitions da ngay gis ku jóg xool boppam ne man lii laa war lii laa war def alors que il est il est évident que le président a réussi la prouesse de mettre en place benn coalition mu maintenir ko ba aujourd'hui 2012 ba léegi c'est très important mais il faut plus de solidarité il faut ku si nekk nga mën a may sa morom li nga xam ne yow xëy na moom nga gën a soxla parce que di nga bëgg moom aussi mu may la yow moom lu mu gën a soxla bu ñu ko defee ça produire benn dynamique d'ensemble bu ñuy permettre non seulement ñu gagner élection parce que au-delà de gagner ay élection dañoo war a gérer la cité parce que loolu mooy définition politique mais boo koy gérer war nga mën a bàyyi xel askan wi war nga mën a euh, sóoraale askan wi seen bëgg-bëgg mais yéen ñu koy def yéen ñu ko ŋànk ngeen mën a am laayante biir bu leen ñuy permettre effectivement ngeen mën a sóoraale lépp mën ànd liggéey et loolu noonu parce que nag euh, euh, euh, làqu Alioune Badara Cissé dafa am lu moo ne nañuy wax aqulaay taala jàngat bu bari moo jàngat bu bëri jàngat bu bëri nañuy wax aqulaay taala si homme politique yëpp si homme mm-hmm. moo tax bu ñuy wax suñu aqulaay taala mm-hmm. dafa am na lu sooxe si biir coalition bi am na lu sooxe si biir parti bi et il est temps que ñu inspiré wu si lii ni occasion mm-hmm. yàlla daf lay daf lay wan ay firnde dee gu mënt doon ay jàngatan sa je pense que bii nii jàngat la boo xam ne ñoo ko war a mais en tant que jeune bi nga xamante yaa ngi ci biir parti bi di yëngatu tey soo amoon message booy wax à l'endroit du président de la république des tenants de la coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñu si nekk yëpp hmm. bon message lay doon boo xamante ni ñoom di leen ko mën a dégg nga wax ñu ko ci biir waaw dama si dama dama bokk si njur gu ndaw gi tuuti si lool hmm. waaye nag effectivement war naa sama avis xam nga su dee Mansour d'ouverture ba nga xam ne moo gagné ñëpp ak ak décès bi euh, revenir aux fondamentaux par rapport ak ces dinosaures la par rapport à ces grandes personnalités là de l'APR am na ñoo xam ne xëy na aujourd'hui ils son pas au service ni ñuy wax par exemple Macky Sall entraîneur la dafay jël xool ku mën a ñi mën a jouer dugal di remplacer mais il est temps que ñun au delà balaa may wax si Benno ñun APR suñu kilifa yi ñi nga xam ne ñoo fondé woon mbir mi ñi nga xam ne ñoo nekk si mbir mi ñu xëccaat leen waxtaan ak ñoom président mi ngi koy def barki démb gis nga mu ànd ak Amadou Ba dem jaale ji fële sa euh, xalif xalif général de la de Layène bu fi kii ànd ak Mimi Touré bu mu demee Louga yooyu yëpp c'est-à-dire que une manière la parce que moom il a compris avant sax kii di génn àdduna il a compris que am na ay ponkal yoo xam ne ñu ngi si parti bi ñu ñu war a xëccaat defaraat famille bi mais au delà de ça soldat bi mu doon wax mu war a nekk du sax soldat gouvernemental mais soldat de coalition ànd ak si biir Benno Bokk Yaakaar parti parti bu judd. kon suñ demee bay defaraat gëm nga ne rëq-rëq am na. am na am na am na ñu ngi koy gérer mais am na ñu ngi jëm si ay élections locales. Mhm. demaguñ fenn. wax ji commencé na bare nga gis benn commune gis ñett ñu bokk parti ku si nekk ne man dama bëgg a nekk maire parce que xëy na si ginnaaw am na loo xam ne waroon na am au préalable amu fa. moo tax ñu war a euh, laayante biir toog waxtaan. jiital waxtaan c'est très important. président euh, euh, wax nañu loolu. nee nañu waxtaan leen su ngeen amee amu leen solution ngeen ñëw wax ma xam ku la wax waxtaan leen su ngeen am solution ngeen wax ma c'est parce que jox na leen injonction ni leen waxtaan leen ka ñëw toog nag sa base ba mhm. bañ a waxtaan kooku noonu xëy na mu ngi si dynamique boo xam ne baaxul moom baaxul ñëpp ñoo ngi fàtt ñoo ngi fàttali ne si ABC lañ nekkoon ba léegi nii te li nga xamante ni moom mooy événement yu passé mhm. Sénégal métti bu baax a baax a mhm, baax mhm, ñu bëri def neen discours dégluwuñu leen mais ABC surum génnee def discours Sénégal yëpp ñoo si gis seen bopp waaw waaw xam nga loolu euh, c'est mémorable discours am boobu noonu mais xam nga c'est au niveau c'est au niveau national euh, xëy na ñu bëri doog si jot waaye loolu yàgg na si ABC mais taxawaay bi ba mu ko defee Sénégal yëpp dañoo wax ne le véritable médiateur de la République à part mais dama ne euh, comme si moom son métier originel bi mooy mooy médiateur de la République parce que moom il est médian je te di dit quelque part cest à que il est médian mooy que moom buggul non seulement dëgg ko jiital waaye buggul di tooñ buggul di yàq buggul di lii te na ñëpp et je pense que rôle de conciliation moo ko may fële sa ndar boo xoolee y a eu beaucoup de problèmes euh, en 2010 euh, fekk maa ngi nekk UGB c'est vrai que presque pare naa mais euh, mu amoon ay problème ba gémi yi dugg ci chambre yi loolu noonu mu amoon ay étudiants yu ñu ñu jàppoon Euh, tëj leen si prison Saint-Louis. mais ñooñu Alioune Badara Cissé moo ñëwoon man maa nga ca bokkoon parce que ñun ñoo bokkoon ñu doon def ñu doon ñu doon dox mbir mi. biir Sénégal c'est la première fois. Euh, mais ñooñu noonu dafa moom moo ñëw mu ne maa leen di défendre sans laaj leen dara. défendre doir yi boo xam ne dafa am solo et a marqué ñu libéré leen ñu def la ñu war a def de la même manière am na ay problèmes yu fi yu fi pêcheurs yi amoon day jóg jël de médiateur ñëw di ko xëy na euh, lu bees la si ñoom mais ñun bees su ñun parce que xam nañ la dimension de l'homme da nga koy déglu xam nga problème bu amee lu gën a métti mooy dégluwante mais tant que nit am na carrure am na présence am na éloquence yàlla may na ko da koy déglu rek boo bu ñu commencé dégluwante rek euh, jàmm mun na ñëw te moom dañ koy déglu déglu nañ ko mu wax xalaatam mu wute nag yenn xalaat yi mais ça n'empêche pas que euh, la plupart de de de personalité la plupart des de des des des des yi nga xam ñu ngi ko doon déglu xam nañu ne effectivement kii il a essayé de tirer le le le le, le médium de tout ça pour que au moins ñu mën a war déggoo faraloo kenn waaye nag am na si loo xam ne xëy na loolu c'est une politique pure et la dafa am loo xam ne aussi dañ ko war a éviter di yee na si yee na si ay maali pro parce que loolu laay wax munoo ñëw yow nga dem xëy na c'est la dérive euh, bi may jégalu si si si par rapport objet bi mais nga ñëw dugg su roq bi ngay dugg defal li nga war a def ne dem si sukkandiku pour taal réew mi la sagesse de ramener le calme euh, def li nga xam ne saa a permis à ñëpp calme président Macky Sall génne aussi dafa di teg si discours bu am solo et ça permis au moins ñu mën a téye loolu euh, noot ko ba nga xam ne ñaawtee fi ak ñaaw yi doon fi am yaakaar nañ dootu fi amati mais au moins sa ça a montré que xëy na ABC mu ñu doon wax Alioune Badji ñu doon wax amoon na taxawaay boo xam ne durant ces six ans là parce que ñu ngi ko nemoon en euh, mu waroon jeexal mu jeexaloon sax presque si août 2016 2021 bii nii euh, mandaam six ans bi mais on on s'est rendu compte que il a joué effectivement son rôle de médiateur au-delà de li nga xam ne moom lañ ko xamee. parce que dafa pré-mandat rek son son son remplaçant est, désigné. ñu ko doon préparé yàlla def nag xam nga Covid bi. Mmh. dafa mu nekk loo xam ne aussi war nañ si xalaat. war nañ si xoolaat jàngat au delà de moom li mu doon au delà de euh, ay ay ak ak ay valeur am ñu xool lu set Covid bi pandémie bi. pandémie bi mu ngi mu ngi mu ngi yóbbu mag ñi. Mhm. mu ngi yóbbu borom xam-xam yi. nee nañu réew. Euh, li koy tax mu gën a stable ndaw yi dañuy am ñu ñu ragal wala ñu rus leen waaye boo xoolee jamono ji ngay gis ña ñu ragal wala ñu rusoon leen ngir lii wala lii ñu ngi dem mhm. tiitaange dafay am mu war a tax nag ñu war a taxawaat mhm. xoolaat suñu bopp mag ñi d'abord mais ñun aussi ñun jeunes yi ñu xoolaat suñu bopp xool exactement ne lii kat war na tax ñu defarwaat góorgóorluwaat ba nga xam ne dinañ fexe ba les demoo kii se réveillent ça et là ñu mun leen a mate euh, dóor leen ba ñu na ba ñu mais ku si mel ni Alioune Badara Cissé seen biir politique yi opposant pouvoir mm-hmm. koo xam ne su waxee nit ñi dégg ko mm-hmm. est-ce que jatul valeur yu mu doon incarné ak nu mu meloon parce que sénégalais yu bëri léegi soo ne politique dañuy doyal si politiciens est-ce que jarul tamit ñu taxawaat ci valeur yooyu noonu pour mën a conquérir encore la confiance des sénégalais parce que sénégalais yëpp la seen yaakaar tas ci politicien euh, loolu am na xam nga nag dafa am loo xam ne xëy na euh, duñ ko wax politicien bi yamuñ mm-hmm. muy politicien muy muy parti au pouvoir muy opposition mm-hmm. muy société civile mm-hmm. muy population nii mais le discours des sénégalais dañu wax ñoom ñëpp ñoo yem euh, yemuñu mënuñoo yem discours sénégalais yooyu di wax discours boobu noonu sax ñoom seen biir yemuñu ña ca baax a ngo sa ña ca a ngo lañ war a def mooy ñi nga xamante ni dénk nañ leen war neen mën a am maturité ak foofu laay ñëw boo xamante ni foofu laay boo xamante ni envers ñu leen dénk foofu laay ñëw dama d'accord bu baax si li nga wax merci beaucoup maanaam mooy son lekk Mhm. le legs de ABC. mooy la war a doon ak patrimoine effectivement ma di loo xam ne war nañ ko mën a xoolaat jàngale ko dans l' école du parti d' abord dans du parti de l' APR. Ah jàngale ko si si si si coalition bi. Mhm. ba si opposition bi je pense que important que ñu replacer l'homme politique. Mhm. dans li nga xam ne moom mooy askan wi. dans li nga xam ne moom mooy euh, bëgg-bëgg askan wi. lu euh, caa gën ne da nga ne lu askan bëgg nga def ko parce que ku mënoon fexe ba lu nit ñi bëgg nga def ko kooku je pense que doo nekk homme politique dañ lay tuddee leneen loo xam ne warul mën a nekk yonentu nga wala leneen nga comme que ay am lañ comme que ay nit lañu aqan dafa am loo xam ne suñu travail mënul parfait à cent pour cent waaye ñu fexe ba nga xam ne ñi ko ŋànk ñu am ay valeur ñu am seen dignité ñu am ay ay ay ay ay mbir yoo xam ne moo leen di définir ba nga xam ne ku leen gis naw leen léegi nag ka bëgg bon day bon mais au moins ñi bëgg a baax man de ma bokk si ñu bëgg a baax mm-hmm. dama jàpp ne président Macky Sall loolu la ñu bëgg a yóbbee man dama koy ñaan aujourd'hui mu fexe ba nga xam ne au moins si parti bi mu am lu mu jël tuddee ko ko wala mu wax ñi nga xam ne ñoo yor l'école di parti mm-hmm. ñu jàngaleel ñu jaar-jaaru ABC man dama euh, yàlla moo tax may wax euh, dañoo nekk ndar ñu am pa wàcc euh, pàcc bi ànd ak Mansour fay si la bokk pàcc bi ànd ak ABC keneen ànd ak keneen mm-hmm. man ma bokk si ñu ànd ak Mansour Faye te ba ma si bokk c'est parce que moom laa gis moom laa xam moo ma doy parce que moom moom mooy sama mentor et je le mais ça n'empêche pas que quel que soit alpha tu vois en l'homme muy muy ABC nga xam ne kii nii am na benn am na am na am na lu lu nekk si moom loo xam ne boo surooyee da nga siy am dara ñun lu ñu nekk nekk nekk xale lu ñu nekk nekk nekk gone daf lu ñuy respecté teg ñu l'histoire politique de Saint-Louis euh, mënoo si génnee ABC naam parce que fi mu jaar jaaram la mais danga nga si da nga siy jàngat lu bare des moments difficiles des moments difficiles yoo xam ne il fallait il fallait face euh, au parti au pouvoir d'alors des moments difficiles yoo xam ne il fallait faire face à l'opposition ba ñu yore pouvoir des moments difficiles yi nga xam ne ci biir commune bi yooyu yëpp mu nekk valeur yoo xam ne war a am solo est-ce que naa la naa la baaxee benn mbir euh, xam nga euh, Alioune Badara Cissé ba ñuy ba ñuy def coalition dekkal Benno Siggil Sénégal dekkal Ngor 2009 moom moo doon mentor bi et pourtant ba ñu gañee élection yi au niveau de Saint-Louis nekkul maire mhm. Cheikh Bamba moo nekk maire mhm. xam nga tax mu nekk maire ba ma Dièye dafa dafa ñëw euh, jàpp ba set julli ñaar rakk ñëw ne ko parce ñoom ñaar la waroon doon kenn si ñoom ñaar mhm. mu ne ko si jëmmi Sëñ Tuubaa bàyyi ma nekk maire moom Alioune Badara Cissé mu ne ko ndéem kook nga tudd pare naa si cest à muy ay affaire yoo xam ne ba léegi sans partage mag ñi sans Dieu partage mag ñi bu ñu la nettali sax da nga gis seen yaram day daw mu wóor ne kii nii si benn mot si jëmm Sëñ Tuubaa mooy le parrainage dafa am une essence religieuse boo xam ne moo war a ñëwaat si lu ñuy def naam dañoo jàngi nasaraan ba jël seen ay mbir mais dañoo war a ñëwaat jël ko d'abord alxuraan ji diine ji valeur yi ba pare nag jéem a xool lu ñu siy teg parce que loolu soo ko defee dina tax doo xeeb nit doo xarab nit doo suufal nit. te lépp luñ denk dénk di nga si mànd. te lépp luñ dénk si ne te di humble. Mhm. cest à man su ma toogee man mi nga xam ne du ma xaala wala kasiran war a mën a toog ak ABC di waxtaan ak moom euh, nga xam ne nit ki euh, am na am na am am na fu mu teg doomu aadama balaa muy doon buy xam kii kan la wala kii kan la benn anecdote euh, nee naa la yàlla def na dama nekk ak ay nit ñu def ma coordinateur cellule de communication de réflexion bu département de saint mhm. bañ koy taxawal dafa voyagé. Benno Bokk Yaakaar ku a taxaw parce que euh, xam nañ ne communication na problème mu ne ma bi tey c' est là où le bât blesse c' est pour cent avec vous. pour t'encourager pour t'encourager waaw dama leen jox sama chef de cabinet. Mhm. Euh, Benoît Sène mu ànd ak yéen si bi c' est mu ngi lay xamal ne la lii ngeen nekk loolu la. te à chaque fois que nga jël loo xam ne am na solo wala à chaque fois nga wax dara si télé wala si média yi nga teseeg moom muy la suivre naa la nii la defel nii defel nii defel nii mais toujours tenter de respect il est arrivé des moments où xëy na ñu jàmmaarloo mais c'est dans le respect loo jàmmaarloo ak moom su weesoo si cadre boobu ngeen waroon jàmmaarloo bu la téye téye sa loxo wax ak yow da nga naan kii de kii laa doon jàmmaarloo sa à dire loolu dafa am solo ñun nag ñun yàlla def na ñu ngi benn benn mentor boo xam ne Mansour Faye musuñu musuñu jàngal xulo xeex musuñu koo dégg si APR Ndar muy daf yekk sa loolu noonu Mansour waxulu ko nee naa ñun moom Mansour ñu def ay xaru yar

nu muy doxalee ba pare na dam jam doon yokk di wax wax xam boo ko waxee ñu jox la cër mais na nga koy waxee mm-hmm. wootu ko et vos relations personnelles yow ak ABG waaye relation personnelle euh, dara lu dul ñu bokk parti mm-hmm. ngeen xamante mm-hmm. ngeen jëflante léeg-léeg nga léeg mu wooyee la monsieur léeg mu wooyee la chef mu wóor la ne yaa yaay moroomu doomam mu wóor la ne respecté na la mu wóor la jox la cër te muy koo xam ne qui n'était pas invité aussi à à conseil et je pense que c'est très important man jege woon naa ko jege boo xam ne xëy na tuuti na lool par rapport ak ak ñu mu nekkaloon ñu ko wër parce que am na cercle restreint boo xam ne ñoom Benoît Sène ñoom beaucoup de gens yoo xam ne Arouna njaay ak ñeneen ak ñeneen ñoo ko gënoon jege mais ça n'empêche pas que nous de loin mu jox ñu cër ñu jox ko cër mais ñu jàng si moom muy nit koo xam ne à chaque fois boo élégant élégant am nga ba démb damay wax ak la de Saint Aïda Dieng kuy ma koy nuyu au passage ku yàgg ci nekk premier adjoint ABC nekk premier adjoint Aïda Mbaye Dieng nekk deuxième adjoint mu ne ma dañ daan dem voyage Lille bu ñu demaan moom ak beneen soxna ndeysaan ñoo ñëpp seen bagage di dox Alioune Badara Cissé mooy ñëw nangu ko ne leen jigéen kenn du ko bàyyi mu kii te bu leen topp si ginnaaw jiitu leen ñu xool si lu ngeen nekk mu ne ma euh, élégance ak galanterie moo doon ABC parce que du jigéen du ndaw maanaam koo xam ne daal dañ jàpp ne xëy na tu plus faible danga bokk si ñu faible ñi. mu ñëw doole da lay protéger. Mhm. da lay aar la euh, et je pense que euh, loolu noonu markam la xëy na am na ñeneen ñoo xam ne waroon nañ bëgg na mën toog témoigne si moom. mais quand même un grand homme est parti. et je pense que ni ma ko waxee war nañ mën a inspirer pour que au moins ku si bëgg a grand nag. day grand ku si grand nag waaw les grands ne meurent jamais moo tax ku si bëgg grand nag da ngay roy si ay mbiram et man moom jàpp naa ne euh, dinaa ko def samay morom nañ ko def mu mu doon koo xam ne wax dëgg yàlla euh, jooy nañ ko Sénégal jooy na ko mhm. waaye nag nañ fomp ronxoñ yi ñaanal ko ba pare nag góorgóorlu ba jëm koo roy du yomb nag mhm. du yomb mais je pense que euh, c'est c'est très important que loolu am et aujourd'hui on attend on attend que le président Macky Sall euh, wax si jëf si kilifa yi wax si parce que xam nga euh, démb démb lañ def euh, levée du corps mm-hmm. kiiwul woon parce que Covid bee tax mm-hmm. te looloo ko yóbbu mm-hmm. moo tax ñu yombal ko dem Touba jënd ko. parce que ñoo ngi waxoon ne président dafa voyagé woon ñaan njëkk ba. président dafa voyagé woon ñëw na démb. fekkee levée du bi. mu gunge ko. ñu dem Touba jënd ko sa baax ya. jënd ko fa mu bëggoon ñu jënd ko parce que nag Alioune Badara Cissé lépp loo mën a wax loo mën a wax loo mën a wax am na loo xam ne munoo soo jeexal mooy bëgg gum bëggoon sëñ Touba euh, te pense que moo joxoon ndigalam ne nañ ko janj foofu yóbbu nañ ko janj ko respecté ndigalam et je pense que di si ziar sëñ euh, Mountakha Mbacké sëñ Touba euh, ak murid yëpp ak bépp kilifa diine mais moom loolu la bëggoon loolu la gëmoon si xolam je pense que mu ngi koy expliquer si benn vidéo fu mu jaar ak la mu def ak jaar-jaar yu mu jaar par rapport ak dem ba États-Unis taxawal fa daayira et je pense que loolu yépp am na solo loo xam ne au moins war nañu ne ku si ne képp ñun ñii nii ku si amul benn dose islam diine sa sa yaram sa xel sa xol amoon na ko lool am na fu muy waxee ma daan foofu am na fu muy waxee ne ñun dee demoon dem jàng nañ la ñu war a jàng si nasaraan waaye fexe nañ ba ñoom seen ay yenn mbir yi jël yi la ñu am si xam-xam la am si diine ñu téye ko pour bañ ku ñu këf yóbbu ni ay ni ay feuille morte je pense que ABC ne, ne voudra jamais que nous soyons des forces mortes et nous devons pas euh, pour lu rendre hommage je pense loolu yaa ngi fii tudd léegi le maire Mansour Faye mu dëkk Saint-Louis comme ABG hmm. di liggéey li nga xamante ni tamit moom mooy suñu ministre du transport hmm. au niveau de Saint-Louis yan yaa ngi wax jafe-jafe communication hmm. par rapport au réalisation est-ce que am na ay réalisation yoo xamante ni am na fa quoi waaw dëgg la da may may xam su may wax si ABC euh, parce que yàlla Saint-Louis yàlla dafay def ne maa su fay moo tax ma jege AVC parce que ñoom ñaar c'est des frères c'est des camarades euh, jege boobu noonu euh, tax na au moins ma am lu bari lu ma jàng mais maa su fay euh, maire la boo xam ne aussi suñ taxee ñu ne y'a problème de communication c'est lu fa am te waxuñu ko donc y'a sax problème de com dafa amoon problème comme xëy na ba léegi am na mhm. ñun newoon naa leen ñun CREB ñëwul pour régler problème communication dañu ñëw pour contribuer mais c'est parce que am na lu ñu fa def loo xam ne xëy na waxooy wuñ ko nañ ko waroon waxee xam nga soo ñëwee si ndar ndar dafa yàgg 659 lañ fondé Saint-Louis booba léegi 1872 la nekk commune ba léegi ndar nekk loo xam ne tabax bâtir ko mu jumtuwaay nekk fi mu nekk capitale du Sénégal nekk fi sax capitale Mauritanie nekk capitale de l'AOF bâtiment yooyu première école église première jàkka première lépp am fa mu nekk ay bâtiment yoo am na solo depuis temps colonial mu nekk fa kenn laalu ko ñëw ba léegi xëy na investissement yi fa waroon am xarab ma benn maire Mansour Faye moom mooy le maire la premier maire qui a osé ne il bii nii ngeen xam ne ñu ngi ko tabax depuis 1959 assainissement bu fi tubaab bi defoon ak ak tëli yu fi yu fi bi nasaraam defoon man dinaa indi projet pour defar ko gars na noo day wax defar na ko mais ndar étude boo mën di gis ñu def si ndar bu point bu si gën a am solo xam nga lan la mhm. protection de Saint-Louis parce que Saint-Louis dafa dafa jàkkaarloo géej gi mu nekk loo xam ne menace la par rapport ak site bi protection de Saint-Louis pour la première fois Saint-Louis am benn projet bu ñu doxal mooy la mooy le projet CERF 53 milliards aujourd'hui bu ñu commencé léeg-léeg képp kuy dox diggante ndakaar ak Ndar wala Thiès ak Ndar di nga gis ay camions yu yëpp ay xeer yu ngande parce que ñu ngi defar digue de protection bi ñu ne déet na waaye route de l'hydrobase parce que am na benn programme boo xam depuis maire Ousmane defoon PDT ko defar moom moo ñëw doxal PDT bi aujourd'hui defar place euh, place boo xam avenue Jean Mermoz la route de l'hydrobase goxu mbaaj tëli bu xonq fa nekkoon te léegi dafa ñuul kukk ak ay pour maanaam yaa a beaucoup de réalisation yoo xam ne assainissement ba des na naam des na dañ koy wax mais quinze milliards yoo xam ne mu taxawal ko bokkul ak lu nekk ci île bi ne vraiment lii nii dama bëgg ndar am am assainissement bu mucc ay ñu jógee foofu poste de santé yi nga ne yaa ngi koy tabaxaat tabax na bu su bu bu bu soor tabax bu bu bu jàmm gën bu sud mu ngay mu Euh, dans beaucoup de choses dans pas mal de choses tu vois le maire a investi xam nga lu garaaw euh, Mansour Faye bu muy ñëw gars di ko fal daf ne leen man fal leen ma budget commune de Saint-Louis barewul waaye dinaa ut dinaa ut andi moo tax ma ne gars nañuy vaar nañuy vaar man dama bokkoon si ñu ko doon fa campagne ñu ko doon campagne xam lan laa waxoon dama ne leen Mansour Faye a un avantage comparatif sur ses adversaires ñu ne mooy ban avantage comparatif ma ne que fa mën a jëmee tibb andil loolu ko ba léegi imagine toi ma loo xam ne nii dama ko wax ndar gars yi dama kii moom ñu ko génne saytu ko point 300 milliards 300 milliards si ay projet nekk en cours au niveau de Saint-Louis xam ne dañ koy dolli stade boo xam ne 22 milliards la stade yëpp moo ngi nekk en cours xam naa yooyu noonu amoon na coow non je m'explique yooyu ni nga xamante ni moo nekk en cours ak yëpp yu ngeen di def te xanaa di ngeen si baaxee bi nga xamante ni moom mooy turu Aline Badara Cissé wala yéen a ngi si proposition la parce que kii parle de Alioune Badara Cissé di wax Saint-Louis te Mansour mooy maire bi. mooy le premier maire. le seul maire ki a osé dem rek visite de site pour defaraat beneen pont Saint-Louis. et je pense que yooyu yëpp am na solo mais li nga wax léegi de pour ñu ñëwaat si Alioune Badara Cissé. son Alioune Badara Cissé s'il a lu ko lu lu ko lu mu gënoon bëgg sur DRC Saint-Louis. ça c'est ombilical. donc ban message. mu jar ban message ngay wax le maire Mansour Faye à l'endroit de la personne. Euh, message la boo xam ne au moins Alioune Badara Cissé mérite na mu am ko fu tuddee. lan lay doon Mansour Faye day xalaat. conseil municipal day xalaat je sais que ñoom mais day am. parce que effectivement loolu au delà de Sénégal waxuma sax Sénégal mais ndar rek. ko war rendre hommage. xëy ba nga xam ne camarade de parti boobu noonu mu nekk. mu nekk ñu ñu ñu fësal ko ba pare defal ko loo xam ne nii au moins nañ xam ne rendre nañ ko hommage. et je pense que loolu la la la maire. merci euh, nag euh, ñun la ñu ni la. et je suñu biir la si wax. au niveau national président Macky nañ def loo xam ne nit ñi nañ ko xoole nañ ko si royee parce que ñun on a besoin de ça ñoom seen ay morom ak ñeneen mais ñun ndaw yi nga xam ne daf ñu dese lu bare te yal nañu yàlla may gudd fan ak wér may ñu euh, bakkan bu euh, ñu fekkee ko ñu am fu ñu xam ne fu ñu fa sukkandikoo ëllëg bu ñu waxee di ñu acam parce que effectivement on a à côtoyer nekk dinañ dinañ xaw a mel ni ñoom. merci beaucoup ban kàddu ngay wax ci Equivox TV ak ban témoignage ngay def si Equivox te yaakaar naa di nga abonné di nga wax mi seen militant yëpp ñu ñëw abonné di suivre suñu boîte. waaw je suis je suis je merci beaucoup. xam mhm. euh, du ma du ma kii lenn ku ma woo rek su ma mënee ñëw damay ñëw. Mhm. mais pas a une structure aussi. ko doxal mhm. mu ji jóg di daanu mu taxaw je pense si ngeen nekk dañ leen si war a jàppale di leen yàlla defal fa leen cat bi nga xam ne nit ñi dinañ leen dinañ leen di ngeen gën a def euh, expliqué wu mm. teg ko si dëgg tekk si jub tekk si professionnalisme. je pense que ça permettra au moins. lii si tu vois Equivox c'est-à-dire équitable Vox c'est ça la de l'information. mënuñ mm. euh, ma fa jógee nag wax si ndar. c'est vrai que le maire la c'est vrai que ñeneen la. mais foog ma wax aussi si beneen kilifa bu fi bàyyeekoo woon. Mm-hmm. muy Alioune Badara Diagne Golbert. Mm-hmm. parce que homme de média la. su ma toogee fii dama koy xalaat parce que mm-hmm. bépp journaliste bu jógee ndar jaar nga si Alioune Badara Diagne mu taxawal fi nekk bëgguma tudd turam mu ngi préparer lu mel nii maanaam daal muy benn muy benn domaine boo xam ne c'est en pleine effervescence je pense que dafay baax ay ay nit yu am valeur yor ko développer ko parce que soxla nañu loolu nous on a besoin d'information mais on a besoin de la vraie information te si loolu la ñuy dox bi nga xam ne si loolu ngeen di dox leen jàmm ban kàddu ngay tàggatoo sëñ boobu waaw jaale Sénégal jaale bi jaale Sénégal yi jaare le maire Mansour Faye mi nga xam ne moom aujourd'hui moom mooy jaraafu jaraaf Ndar jaale ko jaare ko waa get Ndar muy fi nga xam ne fa la bokk ñu xam ne ay valeur valeur moo leen moom moo leen habité jaare di ñaan yàlla euh, mu fexe nga xam ne ñun ñii fi des ñu am lu ñu jàng si moom di ñaan la président Macky Sall ak le ñu mandar bu ñu geesoo xool ko ñu war a dum euh, euh, jubbantiku def lu jub parce que effectivement je pense que mérite na Sénégal au-delà de l'APR au-delà de la coalition au pouvoir au-delà de la classe politique mais Sénégal nañu dal nañu bàyyi yee fitna yàq nit xëy pour yàq nit xëy pour joobe nit xëy pour fexe ba nga xam nit ki euh, muy mu mu def ko naka sulu noonu maanaam soxoor gi nga xam ne wala yéen lu ñaaw lox moo fi nekk yàlla nañu si yàlla musal ñun ñëwaat fi mu bàyyi woon Sénégal am nañ loo xam ne buñ sukkandikoo dañuy dem métti na waaye ba léegi nous résistons nous résistons parce qu'il y a des bases solides mais il faut pas qu'on permette à certains ñu effriter bases yooyu noonu suñ ko defee que loolu ñu ñaan ñaan ndaw ñi nag ñu gën a góorgóorlu ndara xëyul sotti moo tax dara xëyul sotti ñu avancé ndànk ndànk kilifa yi ñun suñu màggee ñu xam ne ñii kat ay ndaw ñu am ñam la ñu waru ñoo fexe dara dañu mu ngi bëgg a bëri Sénégal yàlla ñu si yàlla musa maa ngi leen sant di leen gërëm di rafetlu vraiment jotaay bi neex na lool et leen leen wax ne ëllëg si bi incha allah saa yu mënee ne mhm. que je mm-hmm. parce que man j'aime bien ak mm-hmm. xëy na ni ma mënee wax ak yow bu doon ko ma ko mën a wax mm-hmm. mais dafay kontaan fi wax ak yéen si yeneen domaines yoo xam ne yéen yàlla may ñu fekkee ko tax Habib Biba Seck macha allah di gërëm suñ jarbaat suñ technicien moo duxulee macha allah lépp luñ fiy def moom mooy ki nga xamante ni daf koy def ak xol bu rafet quoi macha allah ko siy gërëm bu baax a baax di wax ñëpp nañ dem abonné si site bi di commenter di def lépp lu ñuy def pour encourager ñu bu baax a baax mm, ñoo ngi leen di di leen gërëm di leen jox ay numéro yu bëri nag inchallah parce que Sénégal lu ñu soxla moom mooy la bonne information di leen dem si kilifa yi waxtaan ak ñoom côté pouvoir côté opposition pour bégal Sénégalais yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah a à très bientôt inchallah